bokk ci manifestation yi mooy bi ñu la fi yanoo noonu ak alkaati yi boobu laa la ci mujjee gis. ndax boobu nga ci pare wala lan moo tax aussi kenn gisatu la nga dem au front lan moo xew. kenn ci marché ñu gis ko. mais maa nga foon vendredi bi passé. non xam naa ni ci affaire électricité bi. maa nga fa li ma bëgg wax mooy da koy jël. ñu gis la nga nekk euh, ci euh, devant bi mu nekk. comme saa yu man kay toujours devant laay ne. du ma ne ci ginnaaw mukk toujours devant lay ne. looloo am solo quoi. mais nag tekkiwul ne parce que maa ngi opposé di xeex peut-être sax ñu tëj maag yooyu que du ma wax ak Macky Sall su ma waree wax ak moom tekkiwu ko. même ci c'est très important. même ci pet. ah ab ah, beneen pet ak moo ci yem moo ci lan lan mooy problème mu set lan mooy problème ñuy lijjanti fii du Sénégal la ñuy lijjanti. su laajul ma toog ak Macky Sall ma tooy ak toog ak Macky su ko laajee ma toog ak moom. surtout franchement parce que man dama weesu affaire yooyu. affaire u diil. Oh non non non damay laaj rek da weesu affaire u loolu loolu laa la wax rek Pape Ngagne vraiment nañ jàll ci. <laughs> d' accord loolu loolu dinaa ko dinaa ko dinaa la ko nangul euh, ñu jàll ci leneen waaye assemblée nationale tudd naa Moustapha Cissé Lo euh, dafa wax ni affaire drogue bi am na loo ci xam drogue bi mu wax mu ne nañ ko laaj moom di Diop Decroix. <laughs> bon. Euh, Moussa si Lo. drogue bi yow lan nga ci lan nga ci laale. alors donc bon. drogue bi nga xam ni mi ngi lëmbe réew mi et puis. man dama def. Euh, nu mu tuddati dama bind président Assane parce que Moussa Cissé Lo quand même bon man nañ koo wax lu ne waaye nag mooy premier vice président assemblée nationale du Sénégal. Mhm. mooy président assemblée bu CEDEAO. fukki réew ak yi séq Afrique gu sow jant seen euh, député moom mooy président. waaw kon c'est du du du n'importe qui daal. su ne xam naa ñiy tabax ay étage ci drogue. su ma procureur wooyee ma ma ma wax ko. loolu laa gis mu wax ko. ma daldi bind gouvernement question orale ne leen na ngeen ñëw. expliquer affaire drogue bi par deux cent cinquante milliards la douane yi di laaj euh, bateau drogue boobu moom après dafa wax ni yow déglu ma rek déglu ma déglu ma Pape Ngagne vraiment il faut quand même baal ma allez-y pour nga xam effectivement allez-y lan lu tax Moustapha Cissé la tudd sama tur xam nga tuddul beneen député mhm. man la tudd parce que man maa bind question orale gouvernement bi ne la loolu waa Moustapha Cissé la wax ñëw leen ngeen leeral ko ba pare Moustapha Niass demandé commission d'enquête parlementaire ci affaire drogue bi bon euh, ginnaaw bi defe naa moom nee na ni ñu ko ni ko gars yi waxee bokkut ak ni ñu ko waxee woon ak yooyu bon jeex na. waaw mais bu ñu waxee nii ni affaire drogue bi nañ ci wax da naan jeex na rek. amul dara nee na nee na ni ko waxee moom waxewu ko noonu looloo ci bëggati. <laughs> xam ne loolu fan la ko waxee est-ce que fa mu ko waxee woon la ko waxee waat wala yow la ko wax ah, waxee waatu ko foofu mais waxee waat na ko wax na ko feneen kon nag jaru ko vraiment jaru ko dafa doon damay kii mais jaru ko d'accord Moustapha Cissé Lo daal bon mhm. wax na ko après nee na non euh, ni ko gars yi déggee bokkul et cetera et cetera. mais dérangé wu la ñu taxaw ci rajo yi wax ni Mamadou Diop Decroix lu ñu. dérangé na ma mais ah, dérangé na ma mais dérangé na ma mais politique. mënoo ne ñi ma neex dong lay ñooy ne ci politique politique moom mook mook mook lépp feneen a yem lu ne nga fay gis da nga ko nangu. <laughs> d'accord audit bi mu wax ci assemblée nationale ba tudd ci Moustapha Niass yaakaar nga ni am na lu ko fa jar lu ñu war a auditer assemblée nationale yow mi fa mais audit audit mooy lan audit mooy seet ndax affaire baa ngi dox fan moo am rëq-rëq fu ko amul ex mais loolu la war a demee mais Sénégal kenn du seet kenn. alors fi mu ne fu ma pam ren su ma nee kaay ma seet ñuy liggéey mu ne waa ji damaa bañ waaw damaa bañ jàpp jàpp ne alors ba kañ loolu bokk na ci lu ñu tardeel moo taxit nan toog rek d'accord alors combat bi nga wax muy lu jëm ci wàllu Sénélec yokkute bi nga xam ni am na ci euh, di nga leen dégg sax ñoo fare fële di wax ni yokkute amul am na nuñ koy argumenté lan nga gis ci li nga xam ne moom moo ci am yow. non dafa sérieux sérieux ñëw dañuy def lu leen neex mënoo yow toog ne ca weer yee ñu passé courant bi dina wàññeeku bon ñu ñëw ba léegi euh, ñu ne état bi jox na Senelec cent milliards ak lu topp. Mm-hmm. ñu ne ti. Euh, Senelec am na bénéfice. xaw ma vingt milliards xaw ma. waa léegi nga bëgg cee yokkati nag yokk électricité kooku euh, njëg gi kooku fu nit ñi jëm. ak naka nga koy mën a justifier naka nga koy mën a. layale euh, dëggale. naka nga koy mën a layale. Euh, kenn mu kenn mënu koo layal maanaam dañu nekk ci ajustement rek dañuy ajuster. Euh, waxoon nañ leen ko nag. ajustement ah, moom mooy mooy mooy kon xaalis daf fi amul ñu koy taqale. ah waaw moom kay taqale ci lañu ne taqale ci lañu ñu ne de euh, noonu nañ leen nag laata élection bi gars yi dinañu <laughs> euh, voilà xaw ki kii ubbi affaire yeeg yooyu. yaakaar nga kuy taqale dina teg projet yi nga gis fii yëpp quand projet yi nga gis ci TER gis ko ci BRT. yaakaar ah, nga lépp bor yi dul jeex du xaaj ak mauvais investissement parce que bor. aayut waaye bu dee danga leb weer wu dee fi mu ne nga war a fay ñaari milliards ak lu topp mhm. ñaata laa lu ma wax ñaari milliards ak lu topp nga wax weer bu dee non bis bu ne bis bu ne mhm. alors bu ko defee bu sotti daal mhm. d'accord léegi combat bi gis nañu nga xam ne noonu la ko activiste yi gàddoo ba Guy Marius Sagna dem ci kaso ñoom Babacar Diop naka noonu vendredi itam woote waat nañu marche bi yaa nga ca marche boobu ak ndax jàpp nga ni combat bi dafa war a continuer pour que solution am ci yokkute courant bi lan nga ci xalaat yow. mais bien sûr cest à président bi ci boppam moo war seetaat affaire yi. yàlla mënta ne affaire bi ni muy doxee. seetaat mooy génn ci. génn ci yokk bi mooy seetaat ko. non non génn ci yokk bi mais du du électricité rek sa à dire mi la ñu war a recentrer dañu doxalin yi la ñu war a seetaat doxalin yépp xam nga bu ñu nee fukki nit dem nañu ci giri pale gars ne àddina tukki na war nañoo rus rus wax loolu war nañoo am gàcce ci ne fukki nit yu dem pale tukkal na Sénégal. ba instruction di ci ubbeeku. ba ba ngay tëj nit ñi kaso. mais mais mais loolu. Mhm. man loolu mënut a dugg ci sama bopp xaw ma nu mu duggee ci bopp Macky Sall xaw ma ko ba léegi mhm. mais ban pays moo gën a menacé moo ëpp ay menaces. ci àddina bi du Amérique. ci ay de force la ñu nekk nag. ci am ban rapport ay rapport de force nag il faut boo jekkoo dara mais gaa nga di di ña nga ca buntu Maison Blanche kër Trump di fa manifester guddeeg bëccëg. Hmm. waa kër Macky Sall manifester nañu fii ci bu ca giru yu pale ba ñëpp di ko gis nga ne daal ñooñu mën nañ faa dem parce que sama waa kër lañu waaye ñi ci des bu ñu ñëwee ma tëj leen kaso jàll na hmm. alors et puis voilà. am ñu koy bind am ñuy bind na way hoo oh, affaire bi garaaw na hoo oh, pop pop pop addinaa ngi tukki ah, lu tax ñu mën a def loolu ah, terrorisme fii kërëb ah. kërëb li ko li ko ko may est-ce que du am opposition bu nooy neex moo ko ko may opposition boo xam ne opposition bi euh, ci juróom-ñaari at yi ñu génn Macky Sall jàpp na fi lu ëpp enfin pouvoir bi parce que xëy na ñuy jàpp du ko yëpp mais de toute façon il est à la base parce que c'est lui laa tête lu ëpp téeméeri euh, opposant tëj na fi kaso lu ëpp ngeen fukki nit man mii di wax ak yow tëdd naa hôpital une semaine nga ne dañoo dañoo nooy kan ça ne va mais en même temps en même temps euh, li gaa ñi di wax yow da ngay jottali. Mhm. xam naa da ngay jottali noo ñuy wax loolu affaire bi du noonu du football de. nga toog ci tribune yi tegale say tànk naan waa ji na paasoo paasam bi baaxul non Sénégal lañuy wax ñëpp war a wàcc ñëpp la concerné kenn ku ne la nga man war nga koo def waaye am na ñoo xam ne ñoom jàpp nañ ne bokkuñu ci mais du ñëppay falu ah. bu tëju du falu ah. non alors donc pour yow falu mooy neexle nguur. déedéet déedéet waaw parce que non parce que ñi ñi acteurs politiques yi ciy xeex yëpp loolu tax ñu ñu ciy rey seen bopp. Ah, ah. pour jëlee fi waa ji la pour mën a toog place am. ah daal di nguuru. waaw ah, loolu la kon nañu tëj nañu tëj kër gi ku nekk toxu ñu mën a dem ca weeroo dem ca weeroo ñu mën a dem Amérique dem Amérique ñu tëj senegal non du loolu. dafa am ñu gëm ne réew ya tekki tey ba tax gone yi di dee pour dem fa. Sénégal war na mën a tekkee noonu dafa am ñu ko gëm di xeex loolu walla kulli xaal te gëm nañu itam ne dina sotti mhm. léegi nag am na ñoo xam ne li leen gënal mooy ñépp yam mhm. waaw dañuy gis koo xam ne bokkul dara ak ña ca des ñu boole leen bu ko dee ci bopp nit ñi ñu ne comme ñépp yam nanu toog seetaan loolu bokk lan lan nga bëgg wax